waaye naa zokk yaa axat kon yàlla ko moom li xaflatin lam yushriku bika axat koo xam ne noon ngaa tal keneen tal sa bopp taxaw di plaider maanaam li ñuy wax al li ñuy wax al idaar la sëñ Tuubaa def anaa ni waxu bu daat moo bari mooy sa bopp rek moo lay intéressé looloo waral te ji nga gis murit li ñu investir lépp ci yàlla ku leen ëpp alal fan nga gis immeuble boo xam dañ ko fa tabax ñu ne murid yi xalif général de ko moo ko ko def ngir di ko luye ngir dara génn ci lu murid di investir daara yi fi yàlla te waxtu wu laajee ñu gën a joxe kon sëñ Tuubaa loolu la tabaxee adduna ndaw ñi lool la ñu war a jël baña topp sëñ Tuubaa moo xam ne rek euh, kenn koy jàppe ne wala ngut foo koy këlkin nit danaan jàng ba am xam-xam am juddu bu rafet ñëw sëñ Tuubaa defar la xam-xamu kese dooyu de boo ko amee ba noppi atar bi turuuxee looloo ko andi ñaata nit nga xamoon ñu mokkal alxuraan ne ciw tund desitu cere lañ leen daan may ak di leen reetaan koo ñaan soxna mu lànk boo ak sa xam-xam ba ba ñëw ci sëñ Tuubaa boo delloo kuy léemu yow lay léemuloo loolu la sëñ Tuubaa defal ñëpp moo ko ku doy loolu yi nga jàng képp doo ko jariñoo ndaw ñi toll ci jàng adduna nag moo xam ñu jàng nasaraan lu ne war ñoo jóg taxaw mas naa ko wax ci université Laval ci ci Québec ma ne leen bu dee nun ñii ñun sëq si kii ñoom duñ leen may dara moom garaawul ñii nga xam ne contrat di ngat fu ñu teg buñ tegee nu teg te ñoom dañuy jox ci financement avec condition noonu ñuy dox ci financement sans condition mooy noonu lu nu am sëñ bi te dara topp ñu ci ñoom nag dañ leen na nii ni ni léegi nag ñi jàng nasaraan yeneen tubaab yu ñuul yu jóg koluwaat nag di këlkin naan sëñ bi waxul lii xam nga ñeme yàlla weesuwut gis ñi ñuy dingat ci yoon wi julli géej gi ñu ne du dëgg fa yam de amul baat bu ñu ci du dëgg donc ah du dëgg ah du dëgg luy dëgg kon xanaa war nañoo jukki sëñ bi julliwul ci géej géej gàmmo bi daal ak débat yi nañ ko ndax ba ngeen cey wax noo ngi avancé noonu université ngi nii 37 milliards dañoo romb yii ñii ne dañ ko weesu bi daa la gàmmoog màggal bi daa la topp nit daa araam ak yooyu yëpp bi nga koy wax tey lañ gën a dof xanaa war ngaa tay seet beneen ba yow xam nga ne investi li ngay wax jàllut te li ñuy wax mi ngi jàll mooy waral ñuy kar ni loolu du dëgg julli géej gi wérut sëñ bi digle wutoon lii ba ci biir murid gi sax atta ci biir murid gi sax ku lijjantiku lool da lay déranger waaye jataayu kaw bii ak toogaayu suuf bii ba ba ñuy dugg bàmmeel du jeex ku la mën a jur te te te ci yoon tarbi doo ko am loolu la Serigne Touba def kon ndaw ñi dañ leen jàngal dëgg-dëgg sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa ay mazahiram mooy saxal ay xaqaayiqam masahir yi yi nga gis xalifa bu toog ne Tuubaa daa tooy mu ne génn naa joxe ay nit na ma tey laa ko dégg tàmbale joxe takk la nga yor joxe ngir fekk si la sa bëgg na keneen def yii ngay seen ci zahir mooy saxal mbirum sëriñ bi